صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an muhammadan rasulullah tey jii ñun ñëpp war nañoo sant yàlla sant gu wér a wér wér sant gu nga xamante ne ci suñu biir ay xol lay jóg jógee ndax wax dëgg yàlla suñu borom defal nañu tawféex suñ boroom itam defal nañu ngëneel ndax booloo gi ñu fi booloo te jëmmi yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa rek tax ci biir booloo googu am leen lu ñu fekk si muy nit kuy dugg ci ci islaam te ñëpp xam yiw yi ci nekk ak cant la gu wér mu mel ni nag ñun defaluñu yàlla lu tax ñu war a am loolu waaye nag inna fadla bi yadillaahi yuxtihi man yasaahu wallaahu zu fadlil azim mu mel ni ngëneel ci loxol suñu borom la nekk te ku ko neex la koy jox du da ngay jëf dara mu doog la ku koy jox wala daa am looy def mu doog la ku koy jox te suñ borom defal nañu tawféex ñu ngi ziar mbokki jullit yi nekk fii yëpp di ci jiital kilifa jataay bi muy jëwriñ Bamba Ñaŋ mii di ci teg euh, sama kilifa gi toog di leen ziar baax a baax a baax xëy na ràññeewuñ leen ci ay tur waaye xam nañ leen ci liggéey bi sëñ sëñ Mor sàll Sall jëwriñu fédération bi ak maam Thierno Amar ñoom ñooy kilifa jotaay bi fii ñu ngi jégalu kàddu yi ñuy yëkkati seen kanam bu baax a baax xaj na day lu nga xamante ni mënut a ñàkk te mu nekk ndigal lu nga xamante ni ci suñu kilifa la jógee muy mu Moustapha Seck ndem nekku feet waaye ci ndigalam la ñuy yëkkatee kàddu yi mu mel ni nag dañ fee dajee ngir di waajal la Touba nga xamante ne jëfi sëñ bi li muy rëy rëy mooy jëf di nga xamante ne ci la sëñ bi mas a sàkku ndimbal mu mel ni tamit dafa amoon lu nga xamante ni moo tax màggal gi am mu mel ni dafa am lu nga xamante ni moo tax tukkib sëriñ bi ci géej gi am ba daje bii ñu war a daje tey yàlla dogal ko bokk na ci li waral loolu sëriñ bee ko waxal boppam nee na sababu xaybati an allaha araada an anaalu minhu jaaha wa an akuna shafian fi xawmi wa an akuna xaadiman fi mi sëriñ bi nee na sama tukki gii li ko waral mooy objectifu tukki gi lay wax maanaam li waral tukki bi mu ne dafa bëgg mën a ramoo képp ku ko yaakaar waaye itam fas yéene liggéeyal njool màkka fa daw mi mu mel ni kon sëñ bi dafa gàlloo ay coono ngir murit yi ko yaakaar ëllëg mucc ci kaw loolu ku ne xam na ni daj na ay coono yu méttee méttee méttee bi coono yooyu amee itam liggéeyal na fa yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ba suñu borom may ko fa li nga xamante ni moom la wax ne araada an anaalu minhu jaaha nee na suñ borom moo namm ma am fa ay maqaama suñu borom moo namm ma am fa ay ngëneel ngëneel yooyu nag ñu mu jëlee ci tukki bi bokk na ci mu ne. كرامتي خط يدي بلا خرور والخط لي يقود أفضل البرور Sëriñ Tuubaa nee na sama karaama mooy sama mbindum loxo mii ci lu dul dañ waaye neen ci mbindum loxo moomu ci la amee ngeen ji càkkutéef sëriñ bi waxaat ñu ne karaamati xatti yadi wali jazab axsamuhu rabbi bi xatti fan jazab mu ne ci sama xasida yii kat muy ba tey ci liggéey bi mu doon liggéey ci la ma yàlla suñu borom subhaanahu wa taala xëcc le lépp lu nga xamante ni moom laa doon sàkku waaye tamit ci mbind moomu ci la ma sama borom subhaanahu wa taala wane lan mooy dëgg-dëgg yàlla ci la ma xamale lan mooy dëgg-dëgg yàlla sëñ bi waxaat ne ma madaxtu rasulullahi xatta ka anani ma al ali wal ashabi fi jismi wal xalbi mu ne day ci tagg gi may tagg yontu bi sallallahu alayhi wa ci laa deme ba nga xamante ni dafa mel ni man damaa bokk ci kër yu waa kër yontu bi muy njabootu yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay waaye noonu ci mbind moomu itam ci la loolu nekk ci aw yaramam ak ab xolom bu loolu wéyee ñu ngi ci soññee ci li nga xam ne moom moo jëm ci màggalu sëñ Bàmba gi nga xam ni moom la ñu dëgmal sëñ Massamba wax na ko léegi bis la boo xam ni mën nañ ni ci lañu gis sëriñ bi mel ni lu ñaan dimbal ci saayir donte sëriñ bi lottut ci dara tëlewut dara ñàkkut a dara bu ñu toogee ba heure bi nag ñu naan màggal gi addiye ji des na wala addiye ji matagut way laa ñu naan ndax dana mat kon ñun war nañoo xoolaat suñu bopp ndax jamono ji ñu toll dey daana fekk sëriñ bi maanaam pare te lan la daan pare mooy waajal ay natt yu méttiyee métti métti métti yoo xam ni tubaab si wala nasaraan si wala nit ñu bon ñi ñoo ko daan teg ci kawam bu daan waajal ay nattu nag ngir bëgg ni bëgg ñoo dimbali ñun jaam ñi kon yaakaar naa bis bu demee ba nga xamante ni li mu doon liggéeyal yàlla suñu borom di ko liggéeyal rasulillahi salallahu alayhi wa sallam sànkam bu tedd ba fay nañ ko ci ba mu ñëw ni damaa bëgg képp koo xamante ni maanaam sama mbégte sa mbégte la nga ñëw sant ma yàlla sama borom ci bis bi ñu ciy laaj 5000 pesos murit bu nekk ci biir Argentine yaakaar naa loolu ak oyof teef la boo xamante ni dama ne damay faral di wax sax ni jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi maanaam dañ ñoo yërëm ndax kenn ku nekk ci ñun téléphone ba nga yor du ñu tàyyi di ko wax moo gën a seer see ko bàyyi see waxee léegi rek kilifa la ci ñun ñëpp di ko ñaanal xam-xam gi yàgg lool eh, yàgg nañoo ñëw fekk ko fi yàlla nañ fi yàgg ñëw fekk ko fi te lépp lu fi wax eh, na ko nooñu ne ko ñëpp di waxee rek yàlla na doon kàdd yoo xam lu sëñ borom gërëm la te bu ko gërëmee mu làqal ko foo xam ni yàq du fa yegg ba mukk at mbooleem taalibe yi nga xam ni eh, ci José Sepas bii lañ féete te ñu bokk ak ñoom ci xidma gee nga xam ni mooy organisation bi ne ci dëkk bi te sëñ maam Thierno Amar mii jiite ko defe naa ni buñ ci la limee ku mel ni mbay baasal mii nga xam buy ñëw moom waa José Sepas ñëpp lay buub eh, daa fekk ni ku lim juum wala boo juumul mën ngaa bañ a matal waaye kon bari waanoon na ñoo xam mu nees na leen a lib waaye nag nañ leen koy waxe ca basang boobu rek loolu la ñuy dellu di leen ko wax fii coono yeeg e, yëngu yeeg at lum ci mën a doon rek man moom li may wax saa su nekkee rek maa ngi koy wax buubam yi nee naa ko wallaay lazim ay milliards sax boo ko joxee woon boo wa boo dajee sëñ Tuubaa desit nga ko jox wallaay lazim ak ga moom du mot mukk mukk mukk mukk mukk kon loolu ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel bu ko defee nag dañuy góor góorlu rek ndax wax dëgg yàlla li fi bàyyi seex jenn wax léegi waxaat ci ay kàddu yu ko gën a kawe munta ne eh, ñun nag wallaay lazim eh, bu dee wax sañu xol day sedd guy barki borom Touba li tax sañu xol di sedd nag damay wax ni saasu ne maanaam boo nee ci barab di fa yëngu boo nee ci barab di fa yëngu rawatin nag yëngub sëñ Touba te kenn ku ci ne xam na ne sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am li may wax saasu su ne rek. wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke bu ñu bu ñu bu ñu saa bu ñu faatu woon fii ñu toog ni ñun ñëpp màggal 18 safar gi du ko tee bañaam wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke loolu sëñ Tuubaa mbir mi moo ko yoral boppam kon boo nekkee ci bërëb di dafa yëngu ba dem ñu tolloog ñëw ci wàllu raq fekk la fa dem ba walaay lazim ku ci yor ku ci ku ci jël kàddu maanaam nga doyal sëkk ci yëkkati kàddu yow doo am fenn foo mën a dugal say kaddu maanaam ku ñàkk ki ñaan war a sant yàlla ci loolu barki borom tubaa kon nag yéen moroomam yi roy leen ko ci loolu mooy ne leen ko dar dàq te xam ni yoon wi roy la ak romb képp koo gis képp koo gis la muy wax te boo jonjanteeg moom mu jëfe ko wërnal sëñ Tuubaa Mbàkke booy wut sëriñ wërnal sëriñ sëriñ a ngook mbir mi amul ay tappale mbirum sëñ Tuubaa bi amul ay làq-làqal sëñ Tuubaa amul woon doom moo ko waxal boppam amul woon di jaay moo ko waxul woon boppam la mu amoon ak taalibe képp la looloo waral nii ko masaam Massamba waxee léegi dal Cheikh Ibra defe naa ni bari julli taxul ñu tudde ko Lamp Fall at yeneen ak yeneen yoo xam ñun ñëpp bir nañu rek loo am ci yoon bi tey jii rek ba mu jariñ la ci ak taalibe nga ko amee kon loolu ñun ñëpp eh, ñu teg ci sañu tànk foofu te xam ne noonu rek lay demee lii mu wax nag ci màggal gi defe naa ni moom eh, tubaar fakàlla sëñ Massamba wax na ko léegi sababu dem gi wax na ko lam fa jële wax na ko li bàyyi Cheikh indi it doy na sëkk li ci des nag mooy ñun ñu natt suñu jëmm yi ñun ñii ci liggéeyam sëñ Touba boobu ñun lan lañu ñu war a doon fi sëñ Touba ñun lan la ñu war a doon fi sëñ Touba ndax kat damay dégg boroom xam-xam yi di wax ne eh, pànk-pànk lu gi ëllëg pànk-pànk lu gi ëllëg ci diggante sëñ Touba ak góor yàlla yi ñuy wax mooy ñuy woote ca ramm bi waxtu ramm ga ay taalibe di ramm ay taalibe di ramm ba mujj gi ñu baax ñooñu di laaj waaye naan ñii ñuy ràmm ñan lañ ñu leen ay taalib sëñ Tuubaa lañ te njool mbàq gi moom ñëwagul foofu nag ndax kon ñun ñii ñun ñii foofu lañ war a bokkam te looloo mat a seet ndaxte yoo kon gàcce la ci murit nga dem ba bisu ci pénc taxaw di xaar sëñ Tuubaa di la ràmm ndaxte yow da ngaa waroon jàppale sëñ Tuubaa ci ràmm googu loolu nag ana lan moo koy maye dafa baax yéen boroom xam-xam yi bu ngeen ci yeggatee. ngeen saraako ko taalibe yi maanaam daje murit mënut a bañ a kon noonu naan kon dajeeg murit mënut bañ a te mooy ni gaa yi def di daanoog di fetasoog di di jug di buubu maanaam moo sañcoon yoon bi te yoon bi loo fi mag bokk ci yoon bi loo dem yow ba naan yaa ko mag rek xamal ni bokkul woon ci yoon bi noonu rek la demee woon mag ñi dañ daan daanu di miiraas seen bopp bu ñu musaan ñëw ci sëñ bi sax njaareem fekk sëñ bi fatu dañ daan jël seen i addiya ci ci ci ci ci ci ci ci sàkket yi ba mu fees jël ñu dari diriwaat seen i seeni mbaam wala seen nag moo xam li indi woon sàkk tey de li jëntiwuñ sax sëñ bi moo naan tëll bu bu génnee mbooleem addiye juñ fi indi rek dina ko wax kan moo ko fa indi kon loolu leneen la sëñ Tuubaa nag du xew yi du moderne la daan maye daaw mooy maye ren te mooy dee man loolu laa gëm man te it ñu moytu lu garaaw dama koy dégg xëy na nag sama ñàkk taalibe moo ma fa jëmee mooy man de damaa araamal sama bopp man man laa wax nag kenn ku ci naal sa gëm-gëm wóor na Seexul Xadim jëf lenn ci liggéey Sëñ Tuubaa bi di xaar fay Sëñ Tuubaa man dama kaa araamal sama bopp li tax na ma araamal ko sama bopp mooy maanaam bu ma nattee ci taarix li ñuy nettali ne maanaam Sëñ Tuubaa fa la ñu fa ñu jëlee ñun at ñu jëmee defe naa ne jëfal ko dara di ci xaar fay barki Seexul Xadim dangaa da kaa war amal araamal sa jëmm ji ba nag moom mu ñëw nag at yërmandeem ju baax ja defal lu la jomb waaye kenn ku ci ne foofu la war a ne fii moom damaa jàppoon ni tey jii sañ Talla wóor na sëñ ba maanaam jëleel naa sax gàmmu gi ndax sëñ Saalif fu mu ko musaan soom teg ko ci waaye wóor na sëñ Tuubaa kër sëñ Tuubaa gi la ñu waroon waxtaane fii waaye du màggal gii nga xam ni mu di bu ci ne wérdi nga ko war a def te ni ma koy waxee rek ku ku ku def erreur rek boor ga sëñ Tuubaa Mbàkke li mu taxaa di wax dana la dal mooy di nga def sa jëmm ci lépp màggal gi moo xam borom bàyyilaat yi la moo xam borom safar yi la moo xam ku mënti doon 18 safar la sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa Mbàkke woote nañ ko santal yàlla kon ku première safar jot nga def un milliard bu 18 safar jotee barki Cheikh Khadim 50 milliards yi moom dañ koy wax waaye téeméeri milliards nga waroon def. 1000 peso mbub ma nga xottil sa soxna wara mu dem màggali Touba moo gën a seer 5000 peso te suba suba bu doon sebet ceeb ceebu kër gi mu tàbbi ci ndox boo xëyee yónnee ko beneen waa ndax sëriñ Touba suñu soxna yi ñoo ñu war a gënal Serigne Touba fu ñu toog di wax ndimbal gim ñu dimbali lim ñu defal ak li ñu Serigne bi jaral ñu ñuy laaj 5000 ñu ci tepp temp temp ñii di joxe 2000 ñii di joxe 1000 ñii di matal ñii duñu matal gars yi nañ leen xoolaat suñu bopp. maam Cheikh Rafal da daan wax ni li ñu naan wërsëg baat la boo xam ne olof moo ko yàq waaye wërisëg la tudd lam ci jublu mooy bu ñu demee ba jàpp jàppoo nit ki teg ko ci kaw jaag ba suul ko la nga xam ni moom moo koy gunge ci biir kàmm ga maanaam bàmmeel ba loolu mooy wërsëgam loolu mooy wërsëg mooy addiya ji ñuy joxe tey. mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin lil makin alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli sunu sang sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam almursalin di ñaanal alxalifa sëriñ muhammadul muntaxa al makki mu yàgg fi lool te wér ba lépp lim yéene ci lislaam ji ak yoonu maamam wi mu àggale ko ni mu ko bëggee ak mboolem mbokki taalibe yi mu ko àndal yëpp. ginnaaw loolu nag ñuy nuyu suñu mbokk yi nga xam ni ñoom lañ fekk si fii ci jataay bi muy waa Daïra Touba Xossepass ñu di leen nuyu ci njiitul sëriñ Moustapha Seck mi nga xam ni moom moo jiite mbooloo mi yëpp di ci teg sëriñ Mokhtar Niang mi nga xam ni wax dëgg yàlla moom it. moom lañ toftal ci moom moom yéen sax yéen ko toftal ci moom ndax dafa am ñaar yoo xam ni mbooloo mi ñoo koy tànnal seen bopp mooy ilimaan ak ak ku leen jiite yàlla dogal comme seere yi sëñ Bàmba def ci moom rek laay laay gën a dëggal ci rafetlu teewaayam ci liggéey bi ci fépp foo xam ne fédération bi woote na fa muy guddi muy bëccëg comme moom moo leen nekkal côté capital wax dëgg yàlla lépp lu ñu mas a woote rek maanaam teew na ci ci kàttun yàlla soo amul ngànt kon nag moom it ñoo ngi leen di seereel nii lépp lu ñu ko mas a jox tamit maanaam indi indi ko ci fédération bi bépp réunion bu ñu woote tamit wax di yàlla maanaam teew na ci wax na ci xalaatam ngir liggéey ngir loolu jëm kanam ba ci guddi yi deux trois heures yi ñuy tëdd yëpp ñooy ànd liggéey bi loolu ñoo ngi leen koy seereel kon moom mat na ndaw di nuyu baax suñu jëwriñ jii moom it doon fii waxtaan waxtaan yi am solo léegi muy sëñ Massamba ñoo ngi lay nuyu baax yooyu ci waxtaan yi am na solo ndax wax dëgg yàlla li nga waxtaanee doy na sëkk aw waxtaan ndax thèmes yu bari nga nga boole te benn bu ci ne sax da nga koo tënk waaye benn bu ci ne rek matoon na sëkk jataay bi xam nañ bu baax ne buñ la bu ko jataay mate woon tabaarkàlla benn bu ci ne eh, te mu xasida bi nga duggoon rek pour nga développer rek ma mat naa sëkk pour jataay bi jeex foofu ginnaaw loolu nag ñuy nuyu suñu mbokk yi ñu àndal rek nga xam ne ñoom it wax dëgg yàlla ñoo ànd liggéey bi te man ma ci fuuf nag wax dëgg yàlla xanaa yàlla moo dogal rek ñuy ànd ñu nekk seen kanam waaye ñoom ñii ñëpp ma àndal ñoo ci man fopp di ko tàmbalee ci sëriñ Bamba Ñang mi nga xam moom lañ toftal ci ñun di ci teg sëriñ mi nga xam ne moo nekk président organisation moom it wax di yàlla di jàmbaar lool ci liggéey bi ak yéene ak pas-pas da ci teg tamit sëriñ Baye seex Dieng moom it ci soññe yu am solo yi nga xam ne def na ko wax dëgg yàlla te li may seere ci moom it mooy rek maanaam moom ni mu ko waxee maanaam loolu rek moo nekk ci moom ndax wax dëgg yàlla démb dong def nañ benn ndaje pour maanaam dajale at yi nga xam ne moo jëm ci màggal gi waaye wax loo xamante ni bii maanaam positifam ak pos-posam rek maanaam ci la ko teg kon moom li muy wax lu dëggula ci moom loo xam ni maanaam loolu lay dund sëriñ bi lay dund te lépp lu ñu woote ci ci ci liggéey sëriñ bi wax dëgg yàlla moom mbokk yi mu àndal daayira bi mu nekk muy daayira constitution kenn du leen ci man looloo dañ koy seere kon xam naa loolu lañ ne woon nañ koo duggee ci jataay bi ndax comme tamit ni ko jëwriñ ji di waxee rek ndax wax dëgg yàlla eh, jataay yi dañuy xam ni tamit nekk na jataay yoo xam ni comme ni ko olof di waxee rek li duuf ci nag wi xëyut ci cin li sëñ Tuubaa tamit nekk na loo xam ne ci xole murit yi kenn ku ne boo jëlee micro li nga ci yéene maanaam mënoo wax lépp mooy loolu la olof di wax li duuf ci nag wi xëyut ci cin li jamono bi nag dafa tombeek sëñ Tuubaa dafa xew dafa xew gi mooy yàgg naa xew waaye nag bis bi nga xam ne moom ci la woote woon ngeen ñu santale ko ci boroomam moo ñëw mbokk yi jaar nañ ci jaarati jaarat ci ñu loolu rek lañ leen di soññi di di ko fàttali suñ bopp di leen ko fàttali ndax sëñ Tuubaa bis boobu moom moo wax ni dafa bëgg ñëpp santale ko ci borom bu baax baax kon nag xam naa comme jataay bi xaw naa xat te wax dëgg yàlla biñ ñëwee siñ mataar mii yëkkati na addiye ju solo maanaam jox nu ko ngir mooy addiye waa Touba Passe Passe loolu dañ leen koy seereel di xam ne gis nañ seen addiye yi nga xam ne moo jëm ci mbale mi nga xam ne moo nekk Touba ak addiye yi nga xam ne moo jëm ci màggal gi loolu sëñ Matar andi na ko léegi fii ci ñun loolu ñoo ngi leen koy xamal kon xam naa kon jataay bi xaw naa xat te wax dëgg yàlla temps bi jeex na yéene woon nañoo waxtaan parce que am na benn texte bu ñu indi woon pour waxtaane ko mooy comportement yi jëmale ko ci comportement yi mais xaw na xat ba xam naa du fi xaj su ko defee rek kon dañuy ñaanal mbokki taal bi yëpp di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw ci jataay bi yëpp muy góor ñi muy jigéen ñi di nuyu mbooleem ñi nga xamante ne amoon nañ yéene teew te mujj noo teew di leen jaajëfal bu baax di ñaan sëñ Tuubaa mu nungul ñu liggéey bi defal ñu tawfeex ak taysiir defal ñu sax de dareen xaqan bi xormati alquraanil kariim kon ñu talal loxo yi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardi man zaa llazii yashfa'u 'indahu illaa bi'iznihii ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min 'ilmihi illaa bimaa shaa'a wa wasi'a kursiyuhu samaawaati wal arda wa laa yuuhiduuna bihi shay'un wa huwa 'aliyyun 'aziim ودمرا كل أعداء جدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله طوير لنا عمرنا ساهر لنا بدنا فهدنا رسول توفيق يا الله واختف لنا كل باب كنت فاتحه لسانه من الخيرات يا الله وانسلا يا ربنا خير نعم ما كان من نقى في مثل النقيم وهب لنا الحداب والمسايا وكف انا الفاتح والرسايا وهب لنا عرسا على التهاتي وكف انا الكسل في الاوقات يا بر يا لطيف يا مؤافي يا من له امر ريسافي أنزل شفاءك ما كان الداهي ولا تحملنا بالابتلاء وأنزل النفع ما كان الضر وأنزل الخير ما كان السر وأنزل الحلم ما كان الجهل وأنزل الجود ما كان بخل وأنزل الخنا ما كان فقر وأنزل السكر ما كان كفر وعصف جميع المسلمين أجلا ثم في مخوفا وسنجلا سبحان ربك رب العزة ما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على safar salaatul